mu ñu ngi ko tàmbali woon ba ñu jógee Porokhane boobaak léegi ñu ngi ci waaye dañ koy liggéey par ajuma étape par ajuma ba ajuma la boobu lañ koy liggéey waaye amuñu ci taxawaay benn yoon ajuma bu jot rek ñoo ngi fi ànd ak taalibe yëpp rek. waaye fi mu toll nii nag ci cinq ans rek la toll fondation bi yegg na mu des dalaas ci biir. ak yëkkati mu jëm kaw wax dëgg yàlla demagul fenn dugg na deux mètres cinquante nag suuf ci fondation waaye fi mu toll nii wax dëgg yàlla ñi ngi toll ci ay cinq rek ak teg seenage di tabax jóg ci lañ toll. naa la guñu benn porte ci biir wax dëgg yàlla liggéey bi soreegul noonu. waaye ñi ngi ñaan nag mu gën a yokk wax dëgg yàlla waaw bu ngeen ko xoolee nii rek ci kanam nga moom moo jógagun ci tabax waaye ginnaaw gi ay cinq ans rek a tuuré waaw mi euh, soroor yi benn jógagun waaw biir gi itam am na dalaas boo xamee ne mi ngi ci biir laalaguñ ko waaye ca moom moo tax poto yi mënul jóg wax dëgg yàlla moom moo ñu empêché fi mu toll nii mooy def dalaas bi rek waaye liggéey bi moom amuñu ci arrêt benn yoon waa mbokku taalibe yi nag ñëpp jàmbaar lañ wax dëgg aju bu jot mbooloo mu baree fii yàlla ak yonent bi ak sëriñ Tuubaa rek moo ñu fi dajale waaw wax dëgg yàlla liggéey bi moom ñu ngi ci sant bu baax a baax daal. soññe bi nga xam ne moom la ñuy def ci mbokk taalibi jumaa ji itam mooy eh, ñuy soññ mbooleem mbokki taalibi yëpp rek ku nekk ci biir réew mi ak bitim réew foofu waaye man di nekk rek góor ak jigéen maa nga ndaw ci liggéey jumaa ji nga xam ne mooy suñu liggéey ci li nga xam ne mooy eh, ay sëñ Fallu Mbatt sëñ Fallu Buso gi nga xam ne naal wu ko gën a rëy amul ci eh, si nga xamante ne mooy yoon wi muy néegub yàlla yàlla suñu borom mbooleem taalibe yi nag sëriñ bi dafa joxe ndigal ci képp koo xam ne ci yaa ngi yaakaar ma sëñ Massamba bu so joxe na la ci ndigal nga di ci jëf ci sa doole waaye di ci jëf itam ci li nga xam ne mooy saw euh, ñaq mooy saw ñaq muy euh, ndigal loo xamante ne bi itam murit jëfe ndigal euh, kon ñun ñëpp dañoo war a maase ci li nga xam ne mooy liggéey bi niñ koy defee ajjuma ji jot boole ko itam nag ni nga xam ne noonu la ko sëriñ bi waxee weer wu dee wu ne góor dafay joxe aw sasam jigéen joxe aw sas muy as suñ topp bi góor ak jigéen par weer wu dee ñu di ko joxe di ko dajale di ko joxe ñu di ko jënde li nga xamante ne mooy li ñuy liggéey ci jumaa ji kon loolu sëriñ bi mi ngi ciy soññi mbooleem mbokki taalu bi yëpp itam nag ak fu fi waay mën di nekk itam te yaakaar sëñ Massamba Kanni Bousso di ci soññi itam bépp jullit boo xamante ni namm ngaa liggéeyal suñu borom subhanahu wa taala ci li nga xam ne mooy néegub yàlla suñu borom subhanahu wa taala bi kon a soññee la bu rëy rëy boo xam ne bàyyiwul kenn taxawaay bi nag mooy taxawa lépp mooy taxawaayu jumaa ji nga xam ne moo ne ci sun ginnaaw am solo boo xamante ne Cheikh Mouhamadul Fadal jël na ko teg ko ci loxoy ay bokkam fas yéene ñu ànd ko taalibeem yi nga xamante ne ñoo bokk ak moom kër sëñ Massamba Kanni loolu nag euh, bu ko sëñ Fallou defee du lu du lu du du lu kii ndax c'est ku nekk xam na ne jumaay Touba ji nii sëñ Fallou taxawee ci jumaa ji noonu lañ tabaxee jumaay Touba ji mooy woo taalibe yi fexe kenn ku nekk def ci aw ñaqam ak am xelam. ak ay xalaatam ak ay yëngoom yëpp ba jumaa ji toll fii mu toll kon nag lool la sëñ lu taxawale barab bii ba mu ko taxawalee nag ku nekk xam na ne bokk yeeg taalibe yi dajale nañ ab fon boo xamante ne nekk na fi bañ mën a commencé liggéey bi waaye na na liggéey bi doxee nag laa leen bëgg wax mooy fond boobee bañ ciy dox ba nga xamante ne taalibe yi yëg nañ ne fond boobu mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi mi mi ngi mi ngi deltu ginnaaw bu baax te liggéey bi doo nekkul lu war a arrêté la la jëwrin yi am xalaatu liggéey bi wërte taxaw ñu gën a jaayante seen bopp ñii di jaayante ciment ñii di jaayante fer ñii di jaayante béton ñii di jaayante ay matériels yoo xamante ne moom la ñuy liggéey bi nga xamante ne dem na ba nga xamante ne euh, bu liggéey bi lu mu laaj tey bu ñu liggéeyee ci ajuma ji tey ba war a wàcc liggéey bi lu mu laaj ci matériel taalibe yi dañuy xam ne lii laaj na ko ñu jaayante ko bokk na ci ay sersin bokk na ci ay gamaat bokk na ca ay ay peel lépp loo xamante ne bokk manqué na wala war a téye liggéey bi rek taalibe yi xam loolu rek dañuy fas yéene balaa ajjuma ji ñu war a jëm delsiwaat taalibe yi jaayante luñ man a amee loolu kon loolu nag lañuy woo bépp mbokkum taalibe wala dëkkandoo wala képp koo xamante ne jot nga ci message bi nga ñëw fekk fekk si ñu ci lii ndax lii moom sëñ Fallu da koo joxe ndigal pour ñëpp jariñu moom aw ajuwut ci taalibe yi bépp jullit la la wax képp ku euh, euh, bëggu yiw daal fekk si ñu ci liggéey bi yaa di ñaan suñu borom yàlla dimbale nu ban àggale ko ñaan bu baax a baax di leen jaanal baax yéen itam suñu borom yàggal leen fi te wéral leen ci barkeb Seexuna Seex Ahmadul Xaadim jërë ngeen jëf bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin al amin wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtada bi hadihi ila din assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ah, ñu ngi am mbégte bu baax di leen dalal ci barab bi Daarul Xaadim di ah, genn kër wala barab benn suuf ci suufi Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul ñu sanc ko ci ndigalam ci euh, pasteefu ak jëfi euh, mbokkam mu baax ma euh, taalibeem bu baax ba sëñ Massamba Kanni Bousso li ngeen gis léegi nii ci penc muy jumaa ju mag ju ñuy liggéey joo xam ne nii ñu ngi koy liggéey ci liggéey bu dëpp jamono jël na espace bu doy sëkk ndax jël na 40 mètres ci wàllu guddaay jël 30 mètres ci wàllu yaatuwaay ñu di ko liggéey ci liggéey bu am tawfiq bu am jàppandal te tegoon xeeroo daaw ba léegi mention boobu mi ngi ci yoon di dox jëm ca kanam ñi nga xam ne nii ñoo ci barkeelu ci taalibe yi ak jullit ñi kenn ku nekk la nga man yaa ngi ko ciy def muy bunt yiw di sa sadaqa jaariya boo xam ne nii ku yàlla dogal sa dënam dem ca rafet la njort ne def nga ko fu mat a def jumaa jooju yaakaar naa ne jël ngeen ko ci biir seen bi ngeen doon filmé mu nekk fu barab barab boo xam ni stratégie fi mu dafa baax ndax jumaa ju mag jegewu ko ci placé na ci wàllu jege na tëli boot na lu yaatu yaatu lool ci ay quartier ci ci penku ci ndeyjoor ci ginnaaw ci euh, ci sowu bi nga xam ne bu yàlla dogal mu àgg di mën a jël nombre bare bari ci nit ñi espace bi mu nekk di penc mi mu nekk di penc moo xam ne nii mu ràññiku la ci tawfiq moo ndax penc la mu yaatu lool 200 mètres yu teg lu bari ci guddaay ak yaataay amee na ko yaakaar naa penc mu toll noonu gisuma ko ci Touba waaw mu yaatu la 300 mètres yi mag bariwut ci guddaay bi ak yaataay bi loolu kon lu am tawfiq la kon nga xam ne am na làq na daal tawfiq joo xam ni bu kawe la njortu jabar gépp nag ànd ci ci kilifte wu xalifa bi sëñ Fallu ci mbuleen ñi koy doxal di ko liggéey ñi talal loxo bépp jullit bu bëgg lu baax bëgg liggéeyal boromam bëgg dawal bàmmeelam dara mu tàbbal aw am ci jumaa ji ndax rafet njot la insha allah taala lu ci waay joxe insha allah dana dem ci biir jumaa ji loolu ñu ngi leen koy xamal di ko yégal mbokk jur yëpp insha allah taala bu dee màggal gi fi am nag moom li ko tax a jóg rek mooy silatu rahim jokk mbokk ak ñaan ak euh, dundal ak mbokk ndax daje ngir jàng alquran ak siyaarante ak euh, weccante xam-xam labirante ci diine ak ci àdduna moo ko lal muy lu yàgg am yàgg am lool jamono si Sëñ Abdourahmane Bousso da moom ci la gën a commencé tasaaroo ci wàllu daje par mbooloo waaye bis bi moom daan nañ ko màggal ci jàng kaamil ak yaatal nga defee loolu mooy li xam ne nii ci tànk daal ma sa ci Daaru Xadim ak li ci aju su jàpp naa ne wax moom li ci ëpp solo mooy maa xal la wa dal la jàpp na dañuy wax am na ci loo xam ne mën na koo jàpp ci Daaru Xadim ak jamaa ji màggal kon hada